أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته batay ñu ngi ci buntu ma jaa fi ruqa wa tamaimi ñoo ngi ci buntu li ñëw ci mocc walla jat ak ay gàllaaj sunu darsu tey bokk na ci jubluwaayu dars bi mooy an yuhazira almuslim min alruqa alshariyati alshirkiyati wattawla bokk na ci jullit bi mën a mën a moytandiku loolu ñu naan jat walla mocc boo xam ne dafa am bokkaale wa tawla tawla mooy mbir yi nga xam ne nit ñi dañ ko doon def di ci jublu jigéen day bëgg jëkkëram tey sunu dars bëgg nañ leeral tomb boobu mooy mbirum mocc ak mbirum jat ak mbirum gàllaaj ak mbir yooyu nga xam ne sëriñu tariyaax yi dañ koy bindal jigéen ñi pour jigéen ñi bëgg seeni borom kër ñaareel mooy bëgg nañ jullit bi ràññee diggante mocc ak jat lan lañ ci yoonal ak lan lañ ci tere ñetteel bëgg nañ an yunaaqisha al muslim hukma tamaim al mustaslama ala al qurani wa sunna an nabawiya bëgg nañ jullit bi xam ràññee ana lan mooy atte mocc boo xam ne dafa aju ci alquran ak sunna wala gàllaaj goo xam ne dafa aju ci quran ak sunna ndax léeg-léeg ci biir dëkk bi nga gis jullit bu takk gàllaaj nga ni ko jullit du takk gàllaaj mu ne la li ma takk alquran la kon dina yell jullit bi ñu leeralal ko loolu muy takk lan la ci lislaam wax bu ñëwee ci dars bi ci mooy leçon bi mooy ibnu mas'ud radiyallahu anhu moo ñu nettali hadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko wax waaye hadis bi dafa am cosaan lan moo tax ibnu mas'ud nettali ko ibnu mas'ud benn bis dafa dugg biir këram mu fekk soxnaam mi ngi takk gàllaaj fekk bët yi ñoo doon metti fu mu toog rek bët yi dañuy tuuru rongoñ mu dem ci benn yahud yahud bari daal di koy defal ay ñaan ay jat walla ay mocc daal di koy takkal daal di koy wékkal ci baatam ndaw si bi mu ñëwee dugg kër ibnu mas'ud comme soxnaam la mu nekk fa waa ji daa génnoon ibnu mas'ud mu daal di ñibbisi mu ñëw rek raa abdullahi ibnu mas'ud radiyallahu anhu fi unuqi zawjatihi xaytan mu daal di gis ci doq ndaw si benn buum mooy li ngeen la mooy léeg-léeg li ngeen di faral di gis ci biir kër yi léeg-léeg nga gis ku am baaraam buy métti ngeen koy tuddee béy wala ku bëñam di métti wala ku noppam di métti wala quelque part di métti ci yaram bi nga gis ñu takkal ko wëñ gu weex bu ànd ak wëñ gu xonq bu ànd ak wëñ gu ñuul ñu boole ci ay pas-pas ay takk-takk ak bëri ci dëkk bi tey ñu koy def daanaka ab sénégalais fu ko dara méttee rek quelques jours da ngay dégg ñu ne ko demal ñu defal la nangam loolu da ko bëri ci dëkk bi te xamuñu ne loolu lislaam lim ci wax mooy ki ko def bokkaale na ki ko def bokkaale na digganteem ak boroomam ibnu masud ba mu séenee loolu fa saala anha mu daal di laaj ndaw si mu ne ko waaw lii lan la fa qaalat xaytun ruqiya lii fiihi mu ne ko ay wëñ yuñ ma defal jat la ay wëñ yuñ ma defal jat maanaam wëñ yi dafa am luñ ci tufli takkal ma ko fa axazahu summa qataahu ibnu masud daal di jàpp ci wëñ yi daal di koy dagg ndeysaan mu téye ci wëñ yi mu dagg ko gis ngeen borom pas-pas bu dëgër ku am pas-pas bu wér ci yàlla soo gisee sa kër dara da nga koy dindi ak nag situation bi lu mu laaj mooy sa kër ku fay bokkaale waroo nangu bokkaale gi di dem ibnu masud ba mu gisee loolu xoolal li ko ndaw si tontu ndaw si moom lan la jublu ci wëñ yi mu takk mooy day wéral daf may wéral ndax dama feebar dem ñu defal ma ci dara ki ma ko jox nee na ma feeg mi ngeeg man loolu dootul metteeti waaye xoolal sëriñam bi jëkkëram borom këram comme xam ne responsabilité bi muy yenu digganteem ak yàlla dafa dagg wëñ yi yemul ci dagg wëñ yi rek wa qaala mu ne ko antum aala abdullahi la agniya ani shirki mu ne ko yéen waa kër abdallah yéen waa kër gii yéen wax dëgg yàlla ñu doylu ak bokkaale ngeen yéen waru leen bokkaale maanaam man abdullah ibnu mas'ud sahaaba bu toll ni man may ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alxuraan di wàcc may fekk may gis jibril dundandoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeex yépp ma fekke ko bal sax dagg nañ sama ñaari nopp ci lislaam man wax dëgg yàlla sama waa kër waruñoo bokkaale allahu akbar mbokkal mbokk yi dégg leen abdullah ibnu mas'ud lu mu wax soxnaam da ko ne ñun waa kër abdullah ñoom dañoo doy lu bokkaale ñoom waruñoo bokkaale su ma saaqal xadis yamul foofu moom abdullah mais dafa continuer xadis bi mu ne ko inna ruqa wa tamaima wa tawlata shirkun yow soxna si xanaa yëgoo ne jat ak gàllaaj ak loolu ñu defal jigéen pour mu bëgg borom këram pour borom këram bëgg ko xanaa xamoo loolu shirkun bokkaale la tey ci ñun ñaata nit ci seen barabu liggéey ci feebar ci ci ci surtout waxtu yi ñu toll nga xam ne nit ñi ku bokkaalewul nañ naan bokkoo ci lislaam ku bokkaalewul nit ñu bari ci ñun néew na ngay gis tey koo xam ne ay mbiram yëpp yàlla rek la ko dénk ñu ëpp ci ñun ñoo am ngëm yàlla boobu léeg-léeg nga dégg ñu ne kenn yow waa yow mbaa yaa ngi ñaanlu mu ne déedéet man sama bopp damaa bàyyi ak sama bopp ak yàlla ñu ne déedéet adduna tey bi boo bëreewul ñu bëree daanu sa kaw kon nag da ngay jóg da ngay fagarlu balaa ngay lakkale loolu ngay dégg ñu lay wax da ngay fagarlu balaa ngay lakkale lan mooy nga fagarlu mooy nga dem ci xërëmkat yi ñu defaral la ay gàllaaj nga bokkaale sa borom subhanahu wa taala loolu mooy fagaru ibnu mas'ud moom yàlla rëccal na ko ci loolu ba mu séenee këram soxnaam dugg ci lu mu xamul ibnu mas'ud bàyyiwu ko waaye dafa dagg wëñ yi yemul ci dagg ko waaye da ko ne ibnu mas'ud ak waa këram ñu doy lu bokkaale lañ yemul ci loolu mu ne ko jat ak gàllaaj ak mbir yooyu jigéen di dem ñu ko koy defalal pour borom këram bëgg ko mu ne ko loolu bokkaale la déggal soxna si lan la tontu borom këram moom lan la jublu woon ci lii mu def fa qaalat lahu laqad kaanat ay nii taxsifu mu ne ko samay bët ñoo doon tuur rongoñ tarmi bil maa i min al waja'i su ma bët yi daal fu ma nekk rek bët yi dañuy sotti rongoñ di metti wa kuntu ataxallafu wax dëgg yàlla ma demoon nag ci waa ji ah pour mu pour mu moccal ma ko pour mu jatal ma ko pour métit bi daa di arrêté fa ila fulaan al yahudi yarqiha ci yahud bi laa demoon sama dëkkandoo yahud bi diw moom moo ma ko defal fa iza raqa sakanat waa ji day bam ma ko joxee ba léegi sax bi ma ko takkee mbir yi métit bi dafa arrêté gis ngeen léeg-léeg nit mu ne la yéen da ngeen naan lii bokkaale la te man bi ma ko naanee wér na wala bi ma ko takkee métit bi dem na wala bi ma ko sangoo métit bi dem na non ñun waxuñu ne du faj dañ ne la bokkaale nga li nga def la yàlla tere mi ngi mel ne sàngara du li muy màndil moo tax yàlla tere ko déedéet yàlla moo ko tere du màndi bi rek yàlla moo ne sàngara bàyyi leen ko soo ko naanee màndi araam na boo ko naanul màndi araam na nit ñi dañoo war xam ne du question ne mbir mi takk naa ko rek wér naa kon baax na déedéet même boo ko takkee nga wër yàlla da koo tere maadaama yàlla da koo tere rek waratoo koo fajoo waratoo koo takk waratoo koo sangoo waratoo koo naan maadaama yàlla tere na ko mu mel ne sàngara nit mun na naan sàngara te du màndi est-ce que danaan su ma màndee araam na su ma màndiwul dagan na loolu ngay wax non soo màndee araam na boo màndiwul araam na gàllaaj gii nga takk su feebar bi wéree araam na bu wérul araam na ndax lii nga takk dafa am lu muy def sa digganteeg yàlla sa xel dootul nekk ci yàlla loolu moo tax takk doy waar ma jox leen benn misaal bu ndaw ñu la bindalee dafa la benn gàllaaj ñu ne la gàllaaj yi daf lay musal ci accident ngay tukki nga sangu ba pare génn sa kër dugg ci oto bi oto bi daw cinq minutes nga ni nii gisoo gàllaaj ji ci sa ndigg wala gisoo ko ci sa mbagg nooy def fekk yow yaa yor oto bi yaa ko doon dawal nooy def kan moo may tontu da ngay taxaw wala da ngay tourner jël siwaat gàllaaj ji ah da ngay dellu kër ga def ko lan ma dem jëli gàllaaj ji pour lan parce que dañ la ne def lay musal gis nga sa xel nekkatul ci yàlla te nag ku takk gàllaaj rek loolu lay koy doyee ku takk gàllaaj rek am nga lu mu koy doyee mooy lan daf lay musal daf lay aar wala daf lay faj wala daf lay am lu mu lay dàqal loolu moo tax gàllaaj ñu araamal ko ndax day dox sa digganteeg yàlla te jullit lépp luy dox digganteem ak yàlla loolu araam na day wàññi sa digganteeg yàlla pas-pas bi nga war a gëm yàlla subhaanahu wa taala xam ne yaa ngi ci yoon wi yàlla rek moo lay musal yàlla moo lay jëriñ yàlla moo lay lor feebar bi yàlla moo lay wéral yàlla moo lay lor loolu moo tax ñu ne leen dafa xaraam boo wéree ak boo wérul yëpp dafa xaraam gis nga ndaw si est-ce que ndaw si dafa wax ne yow de sama nijaay yaa ngi may tere lii naan damay bokkaale man bokkaale wu ma de ndax su ma ko takkee sama feeb mettit bi dootul ñëw loolu dong moo tax ma takk ko waaye lan la ko jëkkër ji wax bokkaale la ndax jëkkër ji déggoon na yonent bi mu ne lii ku ko def bokkaale nga moo tax bàyyeewu ko ndaw si ñun nag boroom loxo yu metti yeeg boroom biy yeeg boroom bëñ yu metti yeeg nopp yu metti yi ah tànk yu metti yi sénégalais bu am fu koy metti deux jours trois jours quatre jours mu dem hôpital wala mu diw ci pomaat tanewul mu dem bokkaale ci foo jaar nga gis mu takk ci buum soo ko ne li mu ne gis nga juróomi fana ngi nii nelaw ma laa wax ba ma ko takkee ba léegi maa ngi ci jàmm munoo fexe ba mu dagg ko kii nee na gis na imaam buy faslu imaam imaamu jàkk waaw te Sénégal ñoom ñoo fi war a ëpp ngëm yàlla muy imaam yi imaam yi bu ñu demee bay fas kon ñu ne ci ginnaaw imaam yi nu ñuy def ñooñu moom waxuma la fas waaye dañuy dañuy takku kon mbokk yi fa qaala abdullahi inna zalika amalu shaytaan xanaa xamoo soxna si loolu ngay def nga takk mu sedd mbirum seytaane la wallahi seytaane la seytaane moo lay moo lay fiir pour jàpp la mbir mi nga takk ko mu sedd nga yàlla mere la ak nga bàyyi ko ci muy métti nga nekk ci mbir ne lu neex yàlla lan moo gën am na ndaw soo xam ne da doon daanu rab mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi ñaanal ma man fu ma nekk rek damay daanu rab samay cër di génn yonent bi ne ko xanaa xamuloo ne feebar boobu di la dal boo ci deewee da ngay dugg aljanna mu ne kon bàyyil noonu su ma dee ma dugg aljanna waaye ñaanal ma bu ma bu ma bu ma mbir mi dalatee bu ma wuññeeku samay awra bu mu feeñ yonent bi ñaanal ko gis nga kooku aljanna moo ko gënal li ñun nag suñu bopp lan la ibnu mas'ud wax jabar ji ne ko loolu mbirum seytaane la seytaane mooy def boo demee ci xërëmkat yi ñu defal la dara ñoom xam nañ ne léegi yow ba nga demee rek génn nga ci lislaam waxuma laak nag ba nga gëmee ne lim la defal dëgg la yow pare nga su ko defee nag ndeysaan mu bàyyi ko ci su ko defee seytaane daal di koy ëf mu sedd wala mu raay ko mu sedd nga defe ne nag yow ndeysaan waa ji lim la defal baax na fekk waa ji ci musiba la la yóbbu parce que safara la la jëmee yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lépp lu mu teree nit rek indi na lu koy remplacer maanaam kenn waxu la boo feebaree bul faju yonent bi nee na tadaawaw ibadallah yéen jaamu yàlla yi faju leen yàlla feebar bu mu wàcce indi na garab gu koy faj li kulli daa in dawa da ngeen faju kon lislaam waxu la bul faju ji nga feebar loxo bi di métti wala tànk di métti wala bët di métti wala bëñ di métti wala fenn ci yaram bi waxuñu la toogal dañu la ne demal nga faju ci waaye nag ban faj faju bu dagan loolu lu jar a xam la faju bu dagan yonent bi daana mocc saxaaba yi daana mocc boppam daana mocc njabootam bokk na ci ñaan yi mu ñu jox kama qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam azhabil ba'sa rabbin nas washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifaun la yughadiru saqaman boo amee fi lay métti tegal sa baaraam fi lay métti waxal azhabil ba'sa rabbin nas washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifaun la yughadiru saqaman nga tëfli ko ci mu sedd am na beneen ñaan boo amee fu lay metti waxal bismillahi juróom-ñaari yoon auzu bi qudratillahi wa izzatihi min sharri ma ajidu wa uhaziru ñett yoon nga tëfli ko ci mu set bu la jiit fettee yonent bi jàngale na lay def lépp lu lay metti yonent bi jàngal na ay ñaan yoo xam ne da nga ko ci def qul auzu bi rabbil falaq yi ngi fi qul auzu bi rabbin naas mi ngi fi fatiha mu ngi fi ayatul kursi mu ngi fi kon balaa ngay dem di defi lu xaraam defal lu dagan mais xam nga la moo tax lu dagan li mënuñu koo def parce que xamuñu ko parce que aussi ñi ngay dem ñu lay defal xamuñu ko ñee da ngay dem ñu lay defal ay jat sala ali muhammad wala ali muhammad ji fii jaafa jafta jafiyang ay karja marja yooyu mooy lan wax yooyu nga xam ne yooyu sax du wax waxu waxu nit maanaam ay jat la jat dafa xaraam mocc moo dagan mocc mooy أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمه ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم loolu mooy mocc jat nag mooy ay salaali Muhammad wa alaali Muhammad li mooy pelem sax yaa bi boo koy gas xaaju guddi ngay jóg koo gis mu dee ku la gis dee yooyu ay jat la xam ngeen ne sunuñu maam yi fii dañ doon jat mais mocc ñu su ngeen demee ci tukulóor yi nit bu fotee bu fotee fot fot mooy lan ngay lekk yax daal di jamu ci sa baat ñoom xam nga lu ñuy wax dañuy tibb benn dànk am na benn turu jigéen bu ñuy wax jigéen boobu lébu la woon ci tukulóor yi ñoom lañ naan cubballo lébu bu foor la woon boo waxee turam nga tëfli ko ci dànk bi boo lekkee yax bi dañ da nga naan pendasaar ca ngawle ni ko ci tëf lekk te lekk yax bi dañ pendasaar to ngawle moom la tukulóor yi di dindee yax loolu bokkaale la bokkaale yàlla la subhanahu wa taala loolu ngay dem di tudd turu nit xoolal tuddoo sax turu yàlla ah yow waxoo bismillah waxoo aouzu billahi min ashaytan rajim jàngoo fatiha sahaaba yi fekk nañ benn buur bu jaan matt tooke gi yéeg buur bi di waaj a dee entourage am ñi ko waroon moom buur bi garde yeeg mbokkam yi di wër ci biir dëkk bi kan moo ko mun a mocc dangar gi wàcc ñuy wër ci biir dëkk bi ndeke saxaaba yi génn nañ dem ca dëkk boobu nekk fa ay gan ñuy wër di wër di wër di wër ba egsi ci gan yi ñu ne waaw yéen gan yi ñëw ci dëkk bi amul ci kenn ci yéen koo xam ne mën nga euh, mocc sunu buur bi benn saxaaba doon leen nax rek ne man mën naa ko ñu ne ko dimbali ñu waay nañ dem mu ñëw jàng faatiha ne ko ci tuf rek dangar gi wàcc fekk moom da doon da doon fon yi rek rek dangar gi sa waa ji wir ah buur bi daal di jël ay xar ay gëléem ay nag ay béy jal ko waa ji ne ko am waa ji tag daal di tiit ah man kat lii ñu ma jox ah xaar ma dem laaji yonent bi mu buub jur yi ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yonent buuru sàngam jaan da ko mat wala jiite ko fet man daal ñuy wër ku ko ku ko ku ko mocc ñu ne ma ndax mën nga ko mani waare ma jàng faatiha tufli ko ci rek affaire bi wàcc léegi nag ñu jox ma lii lépp nan laay def yonent bi ne ko hee yal na la sa yaay ñàkk xanaa xamoo ne faatiha day faj yow xamoo loolu yow xamoo ne faatiha day faj yow de yal na la sa yaay ñàkk gis nga lu ko yonent bi tontu ndeke ñun ñu ngi fi romb faatiha shifaun min kulli daa yàlla moo ko wax wa nunazzilu min alquran maa huwa shifa wa rahma alquran maa ko wàcce wala nga romb fi alquran dem ci ay buum ay petaaw ay lam yu ñuul ay xaaw ay béjjën ay ndombo deru buy eh, deru bukki deru muus deru xaj deru mbaam aka bëri ci jullit yi tey ñu takk deru xaj ngir lan ay we ay we ay we gis ngeen feek bàyyiwuñu xërëm yi ñuy jaamu feek bàyyiwuñu gàllaaj yi du ñu nekk ay jullit munoo taxaw ci kanamu yàlla naan iyaaka naabudu wa iyaaka nastain takk ay gàllaaj munul nekk ay lam nekk sa loxoog ah ay pettaaw ak loolu xërëm la yàlla bu la doyee pettaaw lu mu lay jëriñ bu la yàlla doyee la la la lam di lor bu la yàlla doyee la la la béjjën di jëriñ tukulóor yi nee nañ béjjën allah du si na nafan na ummataa koy xóore jéemum béjjën bi bu fekkoon dina jëriñ est-ce que dina jóge ci bopp bi mu nekkoon béjjën bi ana yàpp ba lekk nga ko ana der ba daaj nga ko yaa ngi koy jullee ana yax ya seeñu nga ko nga jël béjjën bi takk ne dina la aar te béjjën bi aarul bopp bi mu jógee xoola kii takk bopp picc ana picc ma ah kii takk deru bukki ana bukki ba kii takk deru jiit da ngay gis ñu jox la benn téere ne la téere bi deru xaj lañ koy ëwee deru xaj wala deru mbaam wala deru ngay dem takk ko ba pare bëgg a taxaw ci kanam yàlla naan ko yàlla yàlla mu ne la duma la laal parce que yow da ngaa takk sobe ku takk sobe yàlla du la laal misaal bu ndaw yéen a ngi ni toog yéen ñi sol yére yu weex bu ngeen ñëwoon léegi wàcc ngeen dem sa kër nga fekk sa doom jóge ci pot sambur yi yaram baa ngi taq loxo yaa ngi taq tànk yaa ngi taq lépp a ngi taq ci pot sambur bi mu toogoon mu daw bëgg laa laal ci sa yére yu weex yi nooy def da nga naan sa soxna tee ko tee ko wala te yaa ko jurde mais bëggoo mu laal la parce que dafa taq yàlla tamit boo nekkee jullit nga taq boo jubee yàlla yàlla ne la mukk du fii nañu bàyyi bokkaale nañu bàyyi li ñuy takk nañu bàyyi gàllaaj yi mocc ak ak ak jat du benn mocc dafa dagan jat dafa xaraam taarifu ruqa pour ñu xam lan mooy mocc lan mooy jat ar ruqa wa tusamma al azaim jat moom mooy mbir yi nga xam ne dañ koy def di ko jàng ci doomu aadama ngir dindil ko lor wala mocc wa tanqasimu ila qismayni dinañ ko séddale ñaar ruqyatu sharii mooy mocc ci diine wa hiya ma tawaafarat fihi salaasatu surut pour ñu mocc nit ci sharia ci islaam dafa am ñetti charte da ngeen de ñetti charte yow mu feebar nga dem ci benn waay pour mu defal la mocc mocc boobu mu lay defal foog mu dëppoog sharia ci ñetti charte yi ñuy wax bu ci njëkk mooy an takuna bi udiya mashrua foog mu nekk ci ay ñaan yu ñu yoonal ne mën nga koo ñaan ñaan la waaye dañoo yoonal ne mën nga koo ñaan dañ koo santaane mën nga koo ñaan wal afdalu kawnuha min alkitaabi wa sunna li gën ci ñaan yooyu nag mooy mu nekk ci alquran yàlla bi wala mu nekk ci sunna yonent kon boo feebaree benn waaye ñëw teg la fa loxoom ne la laa ba'sa tahuur insha allah asalullah al azim rabbal arshi al azim an yashfika kooku lim la ñaanal baax na bu la jàngalee alquran qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ayatal kursiyu loolu mun a defal baax na ndax alquran la ak sunna alquran mooy waxu yàlla sunna mooy waxu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam kon charte bu njëkk bi mooy ki lay mocc mu mocc la ci lan ci alquran wala mu mocc la ci sunna loolu dagan na ñaareel bi mooy an takuna bi lugati l arabiya lim lay ñaanal na nekk arab na wax arab allahumma nangam bismika allahumma nangam bismillahi nangam na nekk arab aw bi lugatin mafhuma al maana wala mu nekk ci làkk boo xam ne maanaa bi yaa ngi koy dégg yaa ngi dégg maanaa bi yàlla maa ngi ñaan kii li koy métti nga saafara ko xam nga loolu dégg nga ko loolu dara nekku ci waaye ay jii fii jaafaa jaftaa jafiyan karja marja loolu loo ci xam ah xam nga ci dara loolu jat la baaxul ay salaali muhammad wa alaali muhammad jii fii jaafaa jaftaa jafyang loolu xam nga ne du wax xamoo ci dara bu ñu la laajee kii lu mu wax xamoo man dégg naa muy wax rek ngay wax loolu nag dafa xaraam ñetteel mooy an yataqida annaha sababun wa anna naf wa dar bi yadillah ah ñetteel bi tax ñaan di wér mooy lii kat sabab la sabab la rek sabab comme ni ngay naane garab sabab la rek waaye nag lor ak njëriñ ci yàlla la lii da nga koy def rek waaye nag gëmal na yàlla mooy faj gëmal na yàllaay lor sabab la nag da ngay sabablu jaam bi day sabablu mooy aspirine bi yaa ngi koy naan wala paracetamol wala yaa ngi koy naan da nga koy naan ngir sabablu waaye kan mooy faj sunu borom subhanahu wa taala mooy faj mbokk yi kon ñetti yi ñetti charte yi ñu leen limal mooy tax moccu dagan wa qad takunu bi nafsi ala al maridi mubashara loolu nag boo ko defee ba pare mën nga kaa ëf ci ki feebar aw yuqra ala ma'in wala nga jàng ko ci ndox mu naan ko wa yushrabu al marid ki feebar daa di naan mën nga kaa tëfli fii métti mën nga kaa def ci ndox mu naan ko wala mu sangoo ko lii dagan na kon dégg ngeen li ma wax bi dagan bi ci njëkk mooy na nekk alquran wala mu nekk sunna ñaanu yonent bi mu nekk ci làkku arab wala mu nekk ci làkk bu ñu dégg ñetteel bi mooy mbir mi na nga xam ne sabab la waaye yàllaay faj mën nañ kaa tufli ci barab bi métti mën nañ kaa def ci ndox ki feebar daal di koy naan wala ñu sotti ko fii métti suñ defee nii bii wér na dagan na ruqiyatul mamnua jat bi araam mocc bi araam te mooy jat mocc bi araam te mooy jat kallati mooy bi nga xam ne tastamilu ala duaay gayrillah kii ñaan ñaanul yàlla nit feebar indi tànkam di métti mu ne diw sàmba sàmba sàmba tuf dina wér araam na ndax waxul turu yàlla bu doon xar mu ñuy rendi la sax lekk ci xaraam na lépp wa ma ukila wa ma zubiha li xayrillah lépp lu ñu rendi waxuñu turu yàlla sax araam na waxuma la ak nag ñu lay mocc di la ñaanal te waxuñu turu yàlla mus naa gis benn waaye mu ne boo yeewoo suba nga wax juróom-ñaari Moodu Njaay sa journée day neex Moodu Njaay Moodu Njaay Moodu Njaay Moodu Njaay sa journée day neex juróom-ñaar loolu bokkaale la am na ñoo xam ne waaw ñooy ñooy gaaflu bu ñu xëyee dajeeg jigéen dañuy tourner wala bu ñu xëyee dajeeg góor dañuy tourner suñu ustaas da doon wax nga fanaanoo góor ba bët set dajeeg góor di dëpp te nga fanaanoo góor nga fanaanoo jigéen ba bët set xëy dajeeg jigéen di dëpp te nga fanaanoo jigéen ba bët set ñàkk gëm yàlla ah ngay xëy jigéen ne la jox ma dépasse nga jox ko dépasse ah ngay xëy ne sa jëkkër jox ma nga génn daje góor dëpp nga génn daje jigéen dëpp te ki teg sa loxo léegi léegi ki nga doon laaj góor la mbaa jigéen xam nga ne gëmoo yàlla yow ay ay gaaf nga gëm Sénégal nag ba léegi bokkaale dafay des xërëm yee fi des dañoo tuubagul léeg-léeg nga dégg ñu ne tuubeen lañ billaahi tuubaguñu tuub ci boppam lañ deful tuub ko ko ku ko def yàlla rek mais ñun yàlla rek mooy suñu problème fokk ñu wax nit ñi dëgg fokk nit ñi bàyyi xërëm buñ bëggee nekk ay jullit xëy di këppoo ay saafaraak di këppoo ay cuuraay ak di taal di toji nen ak di diri ay lu kenn xamul di sangoo deret ak ba pare bëgg a nekk jullit di takki lam ak di xëcc ay sengoor ak fokk ñu delloo jullit ñi ci islaam mbokk yi bi ñu tere bi ci njëkk mooy tudd lu dul turu yàlla ka du'a il malaayika ñaan malaaka yi jibril jibril jibril